أعوذ بالله سميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin saydina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa man wala ginnaaw ba sant yalla julli ci saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant sunu mbokk invité yi di nuyu sunu mbokk internet yi euh, ci seen site bi nga xamante ni moom lañ baaxoo àndal mooy ci 28 pro euh, ginnaaw ba leen nuyoo bu baax di leen ziar ñi ngi dalal ay saydaat macha allah yoo xamante ni seen xam-xam màcc nañ ci wàllu yi euh, ñu ànd ak seen émission waxtaanu jigéen ñi euh, di ci ànd ak euh, Seyda Fatima ak euh, Seyda Ndiaye Diallo kon nag ñuy bàyyi Seyda mu nuyoo Seyda Fatima ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleyki salaam wa rahmatullah ya Seyda Farima internet yi nuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci seen site bi di 28 pro ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax di am mbégte ak contentement bu baax a baax si ànd ak yéen si émission bii de etu jigéen ñi. Euh, macha allah Seyda euh, nuyoo bi am na solo te ànd nag fasax macha allah kon euh, Seyda Ndiaye ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah Seyda Farima. alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa ajmain mbokk internet ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di leen ziara di leen baal xàq te di leen baal di nuyu di di di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di rafet bu baax a baax ci émission bi ñu invité tey muy ëttu jigéen ñi. macha allah Seyda Ndiaye euh, nuyoo bi am na soo ànd nag fa ma macha allah. kon ñu fas yéene ànd ak yéen ci suñu suñu ci bu ko defee ñu dugg suñu thème bi mu baasharatan rek incha allah ñuy laaj euh, suñu question mi ngi jëm ci Seyda Fatima Seyda Fatima maanaam lan mooy rôlu jigéen ci lislaam ak laataa lislaam tamit bu nu mënee defal benn talxiis bu ndaw nga tënkal ñu rek laataa lislaam jigéen fan la ko fan lañ ko tegoon ak lislaam bi mu ñëwee benn résumation bu ndaw rek incha allah rabbi ay Seyda Fatima bismillah macha allah Seyda Farima thème bi am na solo te dañuy am mbégte ak contentement bu baax a baax ci tontu ci waa jigéen avant islam kon ñu di ko wax almara xablal islaam jigéen avant islaam dañ koo dañ koo doyadiloon kenn joxu ko woon ay àqam ba pare ku nu sonaloon la tamit waa ndax jigéen nga xamante ne nii jigéen boo xamante ne ni woon yow yow sa bopp yow góor gi sa soxna boo amoon doom rek da ngay commencé découragé comme ni ko yàlla suñu borom di waxee ci alquran wa isa bushira ahadukum bil unsa salla wajhahum muswadda nga xam ne bu ñu la ñëwoon rek ne la sa soxna am na doom bu ñu la nee lan la nga ne jigéen la rek sa kanam commencé naa changé ndax euh, jigéen booba joxuñu ko woon àqam boo amee doom rek day day nga xam ne dañ koy rey dañ koy rey walla ngay ñu jël ko. di ko def jëf jëf joo xamante ne nii daal ju suufe la. Mm-hmm. xam nga nga xam ne demoon nañu ba. comme ni yàlla di waxe ci alquran wa isal mawudatu suilat bi ay bin xutilat mu ne dinañ leen laaj seen jigéen ñi daan rey lan moo waroon waraloon ngeen di leen rey nga xam ne defuñu benn bakkaar defuñu dara nga xam ne buñ buñ juddee rek dañ leen di rey loolu li ko waraloon xam euh, nga xamante ne nii xamuñu lan mooy jigéen ak ban solo la am ci li nga xamante ne nii mooy mujtama bi waaw léegi bi alxuraan ñëwee nag yàlla suñu boroom dafa teral jigéen jox ko ay àqam jox ko li nga xamante ne nii mooy dawroom li nga xamante ne nii moom la war a jouer ci lislaam mooy thème bi nga xamante ne nii moom la war a waxtaane nii nga dawrul mara fil islaam bu ñu nee dawrul mara fil islam jigéen am na rôle bu am solo boo xamante ne ni da koy jouer ci l'islam lu mel ni kii tarbiyatul awlaad wa taalim nga xam ne jigéen dafa war a yar li nga xamante ne ni mooy ak njabootam ci diine euh, te bala ngaa yar say njaboot ci diine dafa fekk yow ci sa bopp nga am diine ba pare euh, ba tax na bépp jigéen war ngaa dem nga sàkku ja xam ngir war a mën a xam ni nga xamante ne nii moom ngay yaree say njaboot ci diine teg leen ci siraatal mustaqim ba nga xamante ne nii Euh, dara dara du am ci ñoom wal xam nga kon soxna Farima xam naa dañuy daaneel foofu suñu kàddu. aywa macha allah Seyda Fatima waxtaan bi am na solo bu ñu xoolee li nga fi jot yaatal mooy jigéen xamal nga nu jigéen laataa lislaam avant lislaam di ñëw jigéen ni mu meloon. ak euh, bu njëkkoon min asril jaahiliya arab yi nan lañ daan dundeek jigéen la nee nga fi sax bu njëkk ba ku ci euh, sa soxna daan mucc dañuy xool ba xam jigéen la wala góor la buñ leeneen jigéen ni nga gis seen kanam yi ñu échangé wu kon loolu lépp rek ñu yaakaar ni ñoom jigéen balaa la woon ba ku ci am jigéen sax dangay yaakaar ni moom am nga loo xamante ni musiba wàcc na ci yow kon macha allah Seyda Fatima xam naa ñu bàyyi soxna euh, Seyda Ndiaye mu yaatal incha allah Seyda Ndiaye ñu lay delloo question bi manaam jigéen moom nan la meloon laata lislaam di ñëw ak lislaam bi mu ñëwee nan la ko Euh, maanaam ban wàccuwaayam la ko jox aywa bisimilah Seyda. waaw alhamdulilah ma ñëw ci question bi dina ma neex trop dina am lu ma neex trop ak mbégte contentement di ki jigéen ndax jigéen dafa nekkoon loo xamante ne si avant l'islam muy jaahiliya jigéen dafa doy daloon boolewuñ duñ ko boole ci leen joxuñu ko gëdd dañ ko daan beddi dañ daan def sa sa soxna sax su mësaan a ëmb danga daan gas sa kàmb teg bu amee doom bu fekkente ni jigéen na yow yow doo xool da ñëw rek jigéen ci saasi rek noonu nga koy suulee noonu mu nekk loo xamante ne si lu metti la woon ndax jigéen da daan dun dund lu metti am na ñoo xamante ne si seen doom bu fekkente ni ci jamono jaahiliya bu fekkente ne xale dañ ko daan suul bu fekkente ne dafa xaw a dëgër dana daan dana daan dugal ci teen wala ñu yéeg ci montagne wàcc daanee la ci suuf nga dee daanu tasaaroo loolu lañ daan def jigéen ñi mu nekkoon loo xamante ne si dafa metti lépp lépp te nekkoon ci jaahil nekkoon ci arabi kese du ci arabi kese boo demee ci Inde noonu la Chine ci waa Roumanie ñooñ ñëpp noonu la ñu noonu la daan defanu jigéen ñoom bañ ñaka ba jigéen boolewuñu ko woon dara dan daa wax naan moom daal benn genre objet la boo xamante ne si benn genre bagage la boo xamante ne si bu la neexee nga jaay bu la neexee nga fat bu la neexee nga sànni noonu lañ jàppee woon jigéen ci jaahiliya bi mais ne bi nga xamante ne si nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci ñun mu nekk diine lislaam ci leen mën naa ne ci leer ci leerangoon jigéen feree ndax suñu borom dafa ñoo teral màggal ñu yëkkatuñu yëkkatuñu boo yëkkatuñu ba ca kaw teg ñu foo xamante ne si fu ko kenn mësul foogele woon ndax diine dafa ñëw boole jigéen ak góor ñu yem benn ci wàllu jaamu yàlla jigéen ni muy jaamoo yàlla góor ni muy jaamoo yàlla am ci da am ci pay jigéen tamit bu jaamoo yàlla noonu tamit la ci amee pay kon loolu moo loolu moo war a xamante ne lislaam sargal na jigéen bu baax a baax a baax jox na ko gëddam jox na ko ar àqam ndax jigéen bu ñu ko waxee ci lislaam mooy jigéen mooy yaay mooy mag mooy rakk mooy lépp te dañuy wax naan société bi boo ko xaajee jigéen ñi dina dañ naan arma arma atu nisful mujtama mooy jigéen mooy génn waa société bi te fii li naa war a kulli azim imraa fii koo fi gis muy dox rek ci ginnaaw boo xoolee ba ci biir jigéen nga fa kon jigéen moom mooy loo xamante ni si mënut a ñàkk ci dundu aadama mënut a ñàkk ci dundu doomu aadama kon nag maa ngi rafet lu baax a baax a baax ci laaj bi ma laaj xam naa dañu bàyyi ba ci kanam rek après ñu ñëwaat ci waxtaan mu a yaatu. aywa macha allah waxtaan bi am na solo kon bu nu seetloo moom tamit développé na li nga xamante ni moom mooy jigéen. laataa l'islam di ñëw ndax parce que nee na moom jigéen dañu doon jàppoon benn objet maanaam loo xamante ni dañu utiliser rek sànni ndax bu ñu xoolee arabe bu njëkk ba maanaam jigéen ñi lépp loo xamante ni rek ay panneau publicitaire yeeg yépp loo xamante ni rek luy wuññi seen awra wala yu ni mel jigéen la ñuy woo suñu paree ndax demoon nañ ci sax jigéen ji nga xamante ni tey borom këram dafa faatu dañ naan wax taawam bu góor mën na ko doon yooyu yëpp nekkoon na ci li nga xam te laataa lislaam di ñëw te leeral nañ tamit bi lislaam ñëwee lislaam bi ñëwee salaam fi nu fi nu fi nu ko teg dem nañ xam te ni ñu ni miiras tey jii sa borom kër bu faato wala yow jigéen ji sa waajur faato dangay doon te loolu lépp asru jaahili allah taala amoon macha allah Seyda kon leeral yi am na solo xam naa delluwaat ci euh, Seyda Fatima di la laaj rek macha allah lan nga xamante ni lan mooy loru rôlu jigéen maanaam ci société bi incha allah aywa Seyda Fatima bismillah. Euh, macha allah Seyda Farima laaj bi am na solo euh, rôlu jigéen si societé bi Seyda Farima. Euh, euh, jigéen am na rôle bu am solo boo xamante ne nii war na ko jouer si société bi ndax bu ñu xoolee ci suñu mag mag ñu baax ñi suñu magi diine yi macha allah lu si mel ni soxna yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo woon ay rôle yu am solo ci diine bu ñu jëlee sayyidatna Xadija macha allah kooku nga xamante ne nii dafa nekkoon euh, jigéen boo xamante ne nii bépp jikko yu rafet yi rekk dafa daje woon ci moom. waa di dimbali borom këram waaye doon koo xamante ne nii di daan jaayante di gën di def li nga xamante ne nii mooy commerce ngir dimbali borom këram xam nga loolu di rôle bu am solo boo xamante ne nii jigéen joué ne ko ci lislaam kon ñun ñun jigéen ñu war a xool ci loolu ku kii ku si mel mel ni Sayyidatuna Aïcha kenn ku ne xam na ko ci xam-xamam macha allah ak fonk diineem ba nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan daan naan xusu nisfa diinekum li xësihil xumayra maa ngi leen di wax yéen saxaaba yi ngeen jël seen gin gen wali diine ci ndaw sa xonq si di sayyidatuna Aïsa kon ñun bu ñu xoolee si loolu rek war nañu am nu nu doxee ci ci li nga xamante ne nii mooy diine ñu gëstu suñu wàllu xam-xam bu baax a baax yar suñuy ndaw si li nga xamante ne nii mooy diine ndax faaqidu say in laa yoxtihi koo xamante ne nii ñakk nga dara mënoo ko mënoo koo joxe man tey bu ma nee bu ma nekkee jigéen ma bëgg ne man dama war a war a yar samay doom si li nga xamante ni mooy lislaam te awma ko loolu du mën a ne kon ñun ñun jigéenu jullit dafa war si ñun ñu dem sàkku ji xam-xam boo xam su defee bu ñu amee suñuy doom ñu mën a jëriñ societé bi kon xam naa dañuy wax wàccee foofu suñuy kaddu Seyda Farima macha allah. aywa macha allah Seyda Fatima man waxtaan bi yaa macha allah am na solo euh, li nga jotee développé macha allah am na solo li nga xamante ni mooy jigéen kon euh, jigéen mun mën nañ ni moom mooy lépp. li naan ndax mooy yaay mooy soxna mooy lépp li naan arab naan ummu madrasa ndax école nag dañ koo baaxoon lépp li nga xamante ni ndax fa la ñuy xam-xam te tamit buñ xool ni rek comme par exemple jamono tey ji góor moo war a jàng na ndax ah, talabul ilmi farida ala kulli muslim wala muslima loolu yéen saa salaam wax kon nañ jàpp ni rek ñun jigéen ñi war nañ am xam-xam ni ko góor ñi war am parce que ñun ñoo yar ñooy lépp macha allah Seyda Fatima euh, kon xam naa dañuy dellu rek euh, ci Seyda Ndiaye macha allah ñu lay delloo question bi rek comme ni ñu ko laajee Seyda Fatima maanaam lan mooy rolu jigéen ci société bi. waaw macha allah Seyda Farima. jigéen dafa nekk loo xamante ne si dafa am rôle bu bu bu am am importance boo xamante ne si ci réew mi la si jamono ji surtout surtout si jamono ju nekk nii jigéen bu ñu ko waxee jigéen mooy ki nga xamante rôle am mooy ki nga xamante ne si moom yar moo war fondement la boo xamante ne si ci la ñu magasin la li naan magasin yàlla boo xamante la ci lay ci lay dénk dénk waaye kéwam yi jaamam yu baax yi ndax bu ñu xoolee jigéen mooy jur wàlli mooy jur imaam yi mooy jur ñoom nit ñu baax ñi lépp lu ñu wax rek jigéen a koy jur kon loola war a xam ne jigéen am na rôle bu baax am bu importance boo xamante ne si am na ko ci société bi ndax jigéen ci surtout ci wàllu jàng ak ci wàllu jàngale jigéen bu mën ci doon war nga mën dem xam sa diine xam sa diine même boo ko xamul pour nga ji mais xam ko pour boo xamante ne si ni ngay ni ngay mën a aaree sa bopp nga mën cee ñot nga mën cee aar sa bopp aar ki sa njaboot ndax comme ni nga koy waxee rek comme ni ko sama naataango bi waxee rek. saxaaba yi dañoo nekk loo xamante ne si ay roywaay lañ ku ci mel ne sayda sayda Xadija ak sayda Aïcha radiallahu anhuma ak ki nga xam ne mooy sayda Xafsa bañ na ko ba sayda Xadija moom jigéeni jàmbaar la macha allah da daan commerçant la woon da daan jaay di ñëw di jàppale borom këram muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën naa ne ci saxaaba yi kenn ëpp ku ci solo ci xadis te jigéen la woon jigéen ju jàmbaare jàmbaare loola war a xamante ne si jigéen yàgg naa jàmbaare ku ci mel ne Sumayya ku ci mel ne ñooñ ñoom Haajara ku ci mel ne ñoo ngi noonu moo la war a xam ne ku ci jigéen yàgg naa am rôle bu importance ci ci société bi bu ñëwee fii Sénégal am nañ maam Jaara ñeneen ñeneen ñoo xamante ne si tey jii ñoo fi ñoo yi nga xamante ne si ñu ngi leen tudd ci jamono gi ñu ngi leen tudd ci société bi bu baax a baax a baax a a am na ko ci société bi. waaw macha allah Seyda Ndiaye wax dëgg yàlla euh, développé euh, am na solo lool. kon euh, bu nu dégloo ci seen i kàddu Seyda Ndiaye mi ngi xamal ni maanaam jigéen Euh, saydatuna Aïcha nekkoon soxna si yonent bi euh, radiallahu anha euh, mu nekkoon koo xamante ni ku ku solowoon ay xadis lu bëri tas te jigéen la woon te jamono jooju amoon na ay saxaaba yoo xamante ni ay góor la woon nekkoon ci jamono yeneen tamit moom sax am na ñoo moo leen ëppoon lim solo xadis kon loolu dafa nekk loo xam a xam suñu wàllu diine parce que ñun ñooy des ndaw ñi ndax euh, papa yi ñu ci bëri dañuy wuti xëy na ñun la yàlla nattoo ñun ñoo war a toog ci kër yi ñun ñooy toog ci kër di yar xale yi kon ñun ñoo war a gën a yeeyow sax jàng a a xam ndax ñoo war a yar ndax boo xoolee ci jamono ji naan sax bu doom baax ñu ni yaay jala bu mel ni safaan ba ñu ni papa kon war na ci ñun ak société bi ni mu mel léegi kon jigéen war na ñu defaruwaat ñu xam ñooy kan ndax bu ñu xoolee lépp li fi développé asru jaahile laata lislaam di ñëw bi lislaam ñëwee ni mu teg kon ñun jigéen yaakaar naa lislaam fi mu ñu fekkoon ak fi ñu teg nekk na loo xamante ni c'est d'autres choses macha allah wax dëgg yàlla euh, ñu ngi jaajëfal sunu sahidaat yi waxtaan wi am na solo Euh, di wax ne rek xam naa incha dañuy fas yéene ànd ak yéen ci sunu kàddu gu mujj Seyda Fatima xam naa ñu lay bàyyi nga nuyoo incha allah tëj waxtaan bi ba beneen yoon incha allah rabbi aywa Seyda Fatima bisimilah. waaw Seyda Farima ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax di si li nga xamante ni moom lañuy ñuy tëjee waxtaan bi muy suñu thème bu am solo bi di wax ne. ñun bëgg rek jigéen ñi takkuwaat jejuwaat xam nga xam ne àdduna daal bu nekkoon kii mu immeuble ñoo xam ne assage bi mooy jigéen comme ça fondement bi mooy jigéen kon jigéen ñi nañu gën a laxasuwaat xam ne àdduna bi bu baaxee ñoom la waaye bu kiiwee la tamit ñoom la kon xam naa dañuy wàccee foofu suñuy kàddu di leen wax ni asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aywa waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu aywa macha allah Seyda Fatima euh, tëj bi am na solo ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla defal la jàmm sutura xam naa incha allah ñuy jox Seyda Ndiaye kàddu gi xam naa Seyda Ndiaye ñu lay wax sa kàddu gu mujj. waa alhamdulilah di wax ni sama kàddu gu mujj mooy xanaa di ñaaxaat sama bopp ak ñaaxaat moroom moroom jigéen ñi rek. di wax ñu gën a góorgóorlu suñu bopp gën a góorgóorlu suñu diine te xam ne jigéen ci jamonoy jaahiliya comme ni nga ko waxee ak ci islaam nekk na la utee ndax ci jamonoy jaahiliya daan na dund lu metti loo xamante ne sii ndax tey jii nii bu fa daan dund lu metti loo xamante ne sii lu méttee méttee méttee métti la kon nag tey jii demee ba lislaam ñëw dindi loolu lépp dàq ko teg ko fële teg ñu teg ñu teg ñu ci place bu mag a mag a mag bu mag a mag mag a kon nag loolu war nañu cee boolu sant sant ci yàlla bu baax a baax a baax ñu gën cee xam suñu bopp bu baax a baax baax comme ni ko kii waxee rek ji mën na ne àdduna bi bu doon immeuble jigéen mooy fondement bi kon nag ñun suñ bokk jigéen nañ fonkaa suñ bopp baax a baax di jéem a gëstu gi te jàng comme ni nga ko waxee woon sànq sa kàddu jàng ñëpp a war a jàng waaye ñun jigéen ñi ñoo ko gën a war a mën a yooyoo ndax ndax ñun ñoo war a mën a former suñuy doom moo xam suñu borom kër ak ba bakki suñu sataa ak sataas sax ñun ñoo la war a mën a former kon nag maa ngi am contentement bu baax a baax a baax di rafetlu émission bi di leen jox dig daje ba benn yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah Seyda Ndiaye macha allah euh, ñu ngi lay jaajëfal yow tamit bu baax a baax di leen euh, kontaane ci invitation bi di wax yàlla na yàlla barkeel leen macha allah kon wax dëgg yàlla macha allah li nga xamante ni yëpp. Euh, matale na lépp daal macha allah di leen wax ne rek ngi leen di jaajëfal di leen wax ne rek euh, seen ay mbokk ñoo xamante ni ay ndongo daara la ñu xeebul ngeen xam ne lu ci baax rek suñu borom la lu ci dëng rek ngeen xam ne mata dégg la euh, ñun ñëpp macha allah ay ay taaliba la nekk ci jaama Cheikh Ahmadou Bamba dañuy jéem rek di wax ne rek incha allah ngeen xaar seen deuxième partie bi du yàgg dara incha allah te ñu leen ñaan ngeen abonné ci seen bi nga xam te mooy pro te bu leen fàtte di bës cloche de notification mooy tax lépp lu wàcc ngeen jot ko wa axiru daawaana